yàlla ci kaw la ñuy teg xamatuñu lu ñuy def suñu bagage yëpp yàqu na dimbali leen ñu ngir yàlla ñu ñu nga defal ñu leen ñu nag. moom quartier bi daa mel ne mënu ko ab chef de quartier yéen ñi nga xam na nag yéen a fi nekk sëñ Tuubaa nuy doomi sëñ Tuubaa di sëti sëñ Tuubaa ñaan nañ leen ci ndimbal fu ngeen ko mën a jooytoo ngeen jàppale te yàlla tax jëmmi sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa doo nga leen fi nekk fas yéene koo liggéeyal amuñu ci leen loo xam ne nag tiit nañ ko ci ndax sëñ Tuubaa moom moo nit ci dëkkam bi nu war fas yéene koo liggéeyal ci faras yàlla ak sunu moomu lu nu am di ko dundal di ko yóbbu di ko joxe addiya waaye ndox mi moom sunu jàqara sunu tiita sunu góor ñi tëddat ñu nelaw ku ci am sa doom dénkaane nga ko ku borom kër yi ñëpp génn nañu ba ci kër yi sunu ginnaaw bii jaar ñu si nelaw ñi feebaroon seen feebar yokku na xale yu ndaw yi daar nañ ci ndox yi ñii réer na ñu ñii diñu ñii seen i bagage yàqu na ñu lekku ñu naan ñu ñetti fan yàlla yi kenn ñëw fi kenn ñëw fi xale góor yi dong ñoo takku am seen Pastef ak seen jom doon xale yo xam ne nag xale yi moom am nañ jom lool ñeent fan yi añu ñu réer ñu ndékkiwuñ waaye gisuñu chef de quartier gisuñu commandant gisuñu kenn koo xam ne bokk na ci ñoom gisuñu nag tane ci nag waa fee waa commune Kawar bi kenn jaaru fi dem nañ fa wax ko ko ba ñu gone ya demee mu dimbalam faale wu leen sax yëgul ni moom mii mi ngi wax ak ñoom moom gone yi moom fu ñu matee jooytu jooytu nañ fa yàquñu ñu daray kenn nag dañ ko wax ci njekk ak sutura def ko ci teggin ak yegg waaye yàq ñu daray kenn moom ay tuut tànk suñu xale yi dañoo bëgg dem jàngi amuñu fu ñu jaar ñun ku ñu jàppale ñu jël ku ñu arrangé rek la ñuy wut sonn nañ torop ndox mi bëri na torop daan na bëri nag mais daawul mel nii mais kanaal bi moo ko yokk ñun daal ku ñu fattal kanaal bi daal lool mooy suñu wax ñu naqari ndax ci gox bi lañ jëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee jël ay canal dem ba ca taliba Euh, defoo benn yoon boo xam ne canal yi ndox mépp bu tawee ci suñ kaw lay lay verser ndax ay kanaal boo ko def danga ko war a génne dëkk bi wala nga xool canal yi ne ci dëkk bi nga lëkkale ko ak moom mu génn dem ca biti waaye defuñu ko gis ngeen fii ni mu mel dañoo jël ndox mépp sooti ko suñ kaw bi ji guddee ay deux heures matin ñun ñëpp jóg nañ bi ñu jógee amuñu fuñ jëm ñëpp génn nañ la war a def nag def nañ ko ndax euh, ab dëkk dafa am nu muy doxee ndax admini administration dafa nekk loo xam ne lu am solo la lépp looy def ci ab dëkk war nga koo bàyyi xel. moo tax ba ñu amee lu ñu naqari jóg nañu ñu dem ci délédé délédé ci carte bi waxtaan ak moom bi ñu waxtaanee ak moom mu dem ca mairie ba mairie ba ne ñoom suñu néew ci dégager seen i responsabilité totalement bi loolu amee euh, bërki démboo Njaay ñu daa dem ci préfet waxtaan ak moom. ñu ne ñoom dinañ ci ut ay solution boo bëlee nag ut ñu ay solution ñi ngi jokkoo ak ñoom a chaque fois waaye dañoo jàppee comme benn balu tànk si boo xam ne dañuy awantoo ku aw jox sa morom te ñun ay ay yi lañ ci réew mi lañ dëkk tey doon bàyyi xel sax dëkk bi ni muy doxee mais lii bu nekkoon ci yeneen dëkk ba léegi kon demee na naneen li ñu bëgg nag nañu fajal suñu soxla suñu soxla mooy ñaari quartier ñoo fi nekk daaru manaan un daaru manaan deux fee dañ daan am seenu ndox ñun ñuy am suñu ndox waaye suñu ndox bariwut ñu bëgg a jël ndox ndox ma nekk fële jël ko indiwaat ko fii te dara waru ko lul intérêt bu nekk suuf intérêt bu nekk suuf moo xam ci mairie bi la wala ab société boo xam ne dafa taxaw pour financer xaalis pour lan pour ñu sacrifier ay doomu aadama loolu na ñun duñ ko nangu ndax de nit ah da def sa devoir waaye nga laaj say droit ah waaw xeex bi li ñu bëgg mooy bu xe bu ñu saafaraa lii ba mu saafarawu dinañ def dinañ def mobilisation bu fekkee ne saafara bu fekkee ne saafaru bu fekkee ne saafaru dañoo bëgg continuer suñu xeex xeex bi nag liñ ciy continuer mooy suñu koñ ñu xale yi ñu jóg taxaw ko lépp lu fi war a am mu am fi lépp lu fi war a am mu am fi waaw ba ci fii dañoo bëgg sax ñu taril ñu ko taril ñu ko mais ba suñ jumaa ji ñu defaral ñu ko quartier bi am na lu bari lu leen xari waaw il faut nag ñu jàppale ñu xam na ci dëkk bi lañ dëkk ay citoyen yi lañ te xam nañ suñuy droit ndigal ak yar ak teggin moom la ñuy doxee waaye nag bu ñu ñëwee ba sës ñëw jaar fa ñu war a jaar ci yoon lépp lu ñu war a def ñu danañ ko def moo war a mbooloo mi génn nii tey